at maa ngi wax ak ñoom làmb nangu at làmb bañ moo ngaaka ak Ramdan Junior Ramdan Junior moom lañ jàkkaar lool moo ngaaka moo ñëwoon ginnaaw ngemboo ngemb lu vert li am lu jaune moo ngemboo ngemb lu bula li moo ngaaka ak Ramdan ñoom joxante waa fair play fair laaj na pare nga mu ne ko waaw pare nga mu ne Ramdan Junior at Mo Ngaka Ramdan Junior at Mo Ngaka Mo Ngaka moo ñëwoon ginnaaw Ramdan Junior lañ jaakaar lool Ramdan Junior at Mo Ngaka Ramdan Junior at Mo Ngaka asan ku ne yaa ngi def léemaay seni njooɗo moodu njayeyi ale bogara seni njooɗo moodu njayeyi o kumbayang la ndeysaan Ramdan Junior moo nga ko saaku yi fekkiwul kenn yéen a koy fekk ji Ramdan Junior at moo nga ko Ramdan Junior at moo saaku yi fekkiwul kenn yéen a koy fekk ji Leewtoo nañ ba tool si wetu saaku ba ndeysaan ndeysaan moo nga ko yor na waaye Ramdan Junior at Mo Ngaka Ramdan Junior at Mo Ngaka asaan ñaari xale yaa ngi noonu Ramdan Junior at at Mo Ngaka Mo Ngaka door na Ramdan Junior replié Ramdan Junior at Mo Ngaka at Mo Ngaka Ramdan Junior an moo nga ko daan na ko mbaar na ko ndeysaan Ramdan Junior daan na moo nga ko Ramdan Junior daan na moo nga ko Ramdan Junior daan na ma ngay raam ma ngay raam ndeysaan ma ngay raam ndeysaan ndeysaan ma ngay raam daan na ko ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan moom Ramdan Junior moom Ramdan Junior a ngi noonu ndeysaan dem na si moo nga ko dem na si Mongo ak Ndeysaan ma ngi koy yëkkati waa fair play fair play fair